ginnaaw coowam ak Thérèse Faye mu jëwante loxoy yoon niki tey ji seneen ndaw di may Maimouna Ndour Faye di njiital télévision bi di 7TV yëkkati na kàddoom di xam leen ni dafa fas yéene porter plainte jëmm ji di Cheikh Bara Ndiaye ci division des investigations criminelles bu muy fësal xibaar bi nag boole na ko ak ay kàddu yi ñagas a ñagas jëmale ko ci kii di Cheikh Bara Ndiaye ginnaaw bam jàppee ni dafa yëkkati ay tuuma ak kàddu yu dëppoowul ak yoon jëmale ko ci jëmmam ji. loolu yëpp amu ci. d'accord et li mu wax yëpp waa ji waxul dëgg dafay duuralaate. et vous allez faire quoi maintenant avec lui le concernant mais il va dina ñëw dina dem dinañu daje tribunal. da affaire bi ci naa ko plainte à la ah. DIC vendredi bii passé. d'accord il va aller s'expliquer et il a intérêt à détenir les preuves de ce qu'il avance et c'est impossible que mu am des preuves de ce qu'il avance mhm. c'est-à-dire le monsieur là il faut que sénégalais yi comprendre benn affaire et mais que yóbbaale nañu bëree bëri mais ça vous ça vous étonne garabu garabu du la garabu garabu du day. manipulé non mais yemale ko ci moom rek. non non non ci moom le concernant pour son cas. taxaw ne da nga mën a faj. Mhm. sëriñ da nga am xam te amoo xam-xam da ngay fen da ngay escroquer nit kooku déjà il est son art c'est le mensonge la manipulation noonu lay extorquer de l'argent aux gens. Mhm. et puis le gars dafay fay temps d'antenne pour dem di toog di fenal ay gor pour dem di toog di yàq ay gor xam nga lu ma bëgg. garabu ak li muy def doxatul. Mhm. il d'ailleurs il doit beaucoup d'argent à des gens qui le poursuivent et qui se sont constitués en collectif. am na sax ak keneen ku mu nekk en conflit jamono ji. voilà li mhm. muy def doxul comme que doxatul nag mu déporté wu dans l'espace politique ni muy wax ne da leen gëm gëmu leen faalew leen fu mu jëriñoo lay wut ba pare di teg xel. Mhm. di loo nit ñi ne moom chaque ngoon day dem primature. Euh, mel ni moom mel ni moom daf leen jege dañ ko sant mission kenn sant ko mission. donc cette man... affaire n'a rien de politique parce que ñu bëri gis nañ ci euh, que say bis bi ak régime bi xëy na euh, daf ci joué wala yu mel noonu. il agit seul c'est un boo xam ne moom rek la concerné. gis nga boo yoree nguur di mm. ànd da ngay ànd ak ay nit yu xe am xel. boo baree rakaay en ton sein rakaay yooyu dinañ la indil problème. waaw nee nañ ennemi bu muus moo gën xarit bu dof voilà c'est-à-dire mm. moom aujourd'hui jël na un un problème euh, boo xam ne ça ne concerne pas nit ñi. indi ko dans l'espace public il a réussi à faire croire que man maa ne nguur gi moo nekk ci biir est-ce que xam nga ne mhm. quand les gens ont eu vent de ces rumeurs là nguur gi am na ñoo xam ne woo nañ ma ils s'inquiétaient may mun a c'est quoi cette histoire la bu ñu faram-fàccee ñoom ñaar ñi nekk seen coow li ko waral du lenn dudul ginnaaw changement de régime bi nga xam ni nemmeeku nan ko ci dëkk bii di Sénégal président de la république Macky Sall jóge fii président de la république Bassirou Diomaye Faye wuutu ko fii mu taxaw bu baax a may mën a ndur fay daanaka fan yële passé mu génnoon di xam ne ka ni Ousmane Sonko di premier ministre bu Sénégal bu mu jàpp ni kenn da koo ragal fii kenn ragalu ko jàppee seen liggéey ak lu ni mel mu nekk loo xam ni mu wala Cheikh Bara Ndiaye jàpp nii mooy Mbouna Ndour Faye dafa bëgg a yëkkati li nga xam nii mooy Mbouna jafe-jafe yi ndaw si di may Mbouna Ndour Faye li ko war a du lenn dudul dafa leboon benn télévision bu ñu duppee tv dem ba ca biir mënu koo fay ay bayeeram maanaam ñu ko jaayoon télé bi topp ko sëkkatal ko yóbbu yóbbu ko ci yoon mu ñàkk ab procès am ba tax na sax jamono ji ñu dëgmal bu fekkee fayul bor yi nga xam ni moom la war a fay ñooñ nga xam ne ñoo ko lebaloon télévision bi dañ fa séene daal di saisir maanaam nangu chaîne d'information bi di 7TV mu nekk nag loo xam ni moo waral moom ndaw si di may mën a ndur fay taxaw ni ki tey ji yëkkati ay kàddu yi ñagas a ñagas gàll ko ci ndoddum jëmm ji di Cheikh Bara Ndiaye ñuy déetuwaay mu yëkkati kàddam xam le ni dafa fas yéene porter plainte maanaam dem yóbbu mbir ma ca kanam yoon ñu àtte leen fële ca division des investigations criminelles mu nekk ñaareel bi soxna bi nga xam ne daanaka ci li matul ñaari weer wala ñett rek ginnaaw Thérèse Faye Diouf tey jii moom mi damay mën a ndur fay demaat ci beneen face à face ak ji di Cheikh Bara Ndiaye mu nekk nag loo xam ni jàpp nañ ka ni dina àgg yoon ndax plainte ba moom may mën a fay xamle ka ni daan na koy déposé ca division des investigations criminelles ngir dem jàmmaarloo ak kii di Cheikh Bara Ndiaye mu ngi koy araftu nag di ko xamal ka ni di nga dem wuy ji ci amoo benn preuve di xamal ka ni moom il va faire taire ki nga xam ne maanaam dina tëj gémmañu ki nga xam ni mu ne Cheikh Bara Ndiaye ndax moom may Munu door Faye ma nga jàpp nii li nga xam ne sax Ba Ndiaye yëkkati na ko ay kàddu jëmale ko ci moom amul dara loo xam ne am na ci ci télévision bi di Sen TV amul benn menace boo xam ni mi ngi jëm ci kawam jëm ci wàllum jëm ko saisir wala lu ni mel ndax lépp mu ngi en règle mu yokkute également di xam leen ni depuis ba mu dalee am ay employé ba léegi amul kenn ko xam ni sa salaire bus naa tardé wala lu ni mel maanaam mi ngi respecté liggéey bi saa su ne mu nekk nag kàddu gu ñagas a ñagas goo xam ni ndaw si yëkkati na ko ni ki démb jëmale ci Cheikh Bara Ndiaye ginnaaw seen i jafe-jafe ginnaaw également jafe-jafe xam ni Cheikh Bara Ndiaye ba ngay xam ne que ni ci lu yàggul dara moom ndaw si di Maimouna Ndour Faye bu fayul ay bailleur xaalis bi nga xam ne moom la leen yoreel wala ñi nga xam ne ñoo ko lebaloon télévision bi ginnaaw kàddu Cheikh Bara Ndiaye mu ëpp daanaka 80 millions de francs CFA di dem dañuy saisir télévision bi jox ko seeni borom mu nekk na loo xam ni ndaw si contredire na ko bu baax a baax di xam le nii cette TV nekkul sur le coup d'aucune menace bi day continuer ñëpp nekk seen yoon en attendant ñu dem fële ca division des investigations criminelles moom ak Cheikh Bara Ndiaye li jënti seen i jafe-jafe ñu xool ci am dëgg ginnaaw seen coow ñoom ñaar